waaw ah, mu wax prononcé la moo bit waaw waaw dafa xaw a metti nag. mais après di nga am habitude. moom moo jaaxal waaw bi la ñuy utiliser. moo tax man de bit rek laa doon wax man bit. <laughs> waaw bit la noonu lañ koy waxee bit la wax mais yéen ñu naan ne bit su quoi. <laughs> bit su ma yaakaar ne mooy mooy mooy <laughs> waaw Yves Yves bu njëkk ba. dañ hmm. daan gis ne que ni danaan tàng. bu ñu waxee rek. coow li day bari. waaw day wax de mm-hmm. gauche à droite. wax ji mm-hmm. dafay bari. Mm-hmm. est-ce que bu woon démb bi du fekk nga naan tàng. di teel a aalu est-ce que euh, liggéey nga ci côté maturité bi yow ak sa staff léegi ivnia bu woon démb ak tay bokkul. waaw xam nga loolu affaire xale la rek xale boo gis rek ak mag bokkul. Youssou Ndour ne la looy gën di màgg sa xel di gën a màcc deretu ndaw ak deretu mag bokkul yaa ngi dégg. mais yaakaar naa ku xool Yves Niang loolu c'est normal doomu aadama yëpp la du dëgg nit bu amee vingt ans wala mu am dix-huit ans ba vingt-cinq ans ba trente ans kooku pour nga téye ko xam nga xar mu ndaw sax boo ko yeeg sa kër bu yàggee mu bàjjanti mais boo jëmee mag danga nga naan teg fi mu ne dama ni <laughs> nekk nii da nga ne da nga ne tekk Yves Niang waaye dañ leen di fàttali ne leen euh, point de presse bi ñoo ngi fii ñoo ngi am euh, waa Grand Théâtre TV ñu am Leeral TV am JTV ak muy Jeunesse TV ak Kantekom ak waa Ami TV. Mhm. ci kanam tuuti balaa ñuy clôturer li nga xamante ni mooy point de presse bi. Mhm. Yves Niang pare nga pour yeeg Festa 2S nga nga nga prester ak sa groupe. waaw noonu loolu ñu ngi ciy liggéey parce que euh, instant bi bëgguma dara bett ma tëju naa maag Africulture liggéey lu rëy liggéey album bu rëy gis nga vidéo bi euh, bokkut ak vidéo yi ma daan def. Euh, génn naa sa sax fecc yi ma daan fecc bu njëkk ba xam nga fecc ko ci pour xamal leen ni carrément loolu mi ngi fa xam nga mais incha allah waxuma la sax festa boobu rek mais ñu ngi liggéey ci bépp festival bu nekk ci àdduna bi rek incha allah bëgg nañ fa def parce que tànk yooyu moom lañ moom lañ moom lañ nekk di ko def ñu quoi. Euh, dañuy gis ci artiste malaxmaan yi comme euh, bu ñu jëlee ci artistes yu mag yi comme ay Youssou Ndour comme ay Thione Seck mhm. ñoom ils se sont structurés mhm. essence bi taxaw nañ ci taxawaay bu dëgër mhm. yow nga décider structuré wu est-ce que euh, woo nga artistes yi nga xamante ni ñoo nekk au milieu au niveau de Pikine nga toog waxtaan ak ak ñoom ñi nga xamante ni say rakk nañu nga uuf leen ñi nga xamante ni say mag nañu aussi la jéem a boot ci ñoom est que loolu def nga ko Euh, woo nga leen malgré tout que ni changé nga yow musique bi nga daan def. Mhm. waaw non loolu beneen liggéey la boo xam ne dama ci war a liggéey ak ñoom en tout cas ci biir liggéey bi may liggéey ak Africulture ñuy liggéey album bi ci la yàlla dogal mbas mi dugg Sénégal xam nga. Mhm. wàcc àdduna bépp wàcc Sénégal ci kaw loolu nag vraiment bi ñëpp toogee defuñ dara ma gis artistes yëpp def seen participation ci mbas mi di defar ay morceaux ci la waxtaan ak Matador. mënuma woolu artistes yi nekk ci bande yi bépp c' est vrai que ñëpp mënuñu leen mënuñu leen woo mais fexe naa ba woo 21 chanteurs comprendre nga ci bande bi ñu ñëw may remercier yëpp nag parce que woote ñu wuy si la yombul ñu ñëw fii tëju ci studio bi defar fi benn morceau boo xam ni morceau bi li ko gën a may valeur mooy suñu maire monsieur le maire Abdoulaye Timbo maa ngi profité di ko nuyu bu baax a baax a baax ndax complexe bi ñu nekk tey jii moo ko dirigé mais 16 communes d' arrondissement yi nekk ci banlieue bépp moom mooy kilifa bi xam nga. maa ngi fi seen nag suñu papa suñu xarit grand serigne de euh, Pikine banlieue bi sax lañuy wax muy Moussa Yes Sey ah nekk ñu ko baax di liggéey di liggéey Tumbo mu bokk ci combat bi comprendre nga ci laa woo artiste yëpp def ak ñoom morceau boobu maire ñëw dugal ci dugg ci participer ci vraiment bokk ci vidéo bi tonton Yes bokk ci vidéo bi ñu lancé ko loolu nag tey jii jur na lu bëri comprendre nga morceau boobu jur na tey jii bi bi président lancé ni vraiment dafay jël 3 milliards jox ko artistes yi tey jii yombal na ma ma sol sama dàll woo bépp artiste bu nekk ci banlieue bi c'est vrai que ñëpp mënu ma ne ma woo mais mais mais woo naa 168 personnes. dem jël seen photocopie carte d'identité dem jox ko ku ñuy wax euh, Aziz mu teg ko ci loxo ministre bi ba artistes yi nekk ci banlieue bi bi fond bi génnee jéggiwu leen. parce que banlieue bi bëri na fi ay artistes yoo xam ne amuñu carte SODAV amuñu carte AMS amuñu carte dara dañuy way rek xam nga mais xëy na état du doon xam mais man xam naa leen parce que man ak ñoom ñoo dëkk vraiment te loolu bëgguma woon mu jéggi banlieue bi sama combat moo nekkoon tey jii ma dem dëgg fa yàlla ñëw jël seen photocopie carte dem jox ko ministre bi fonds yi bi mu bi man bi mu génne sax man daf ma tiital parce que man sama sama lettre bi ma dugaloon ministère presque ñoom lañ njëkk a jox te loolu sama ndam la comprendre nga mu fierté la ci man wax dëgg fa yàlla ma jug mënoon naa demal sama bopp rek mais le fait que ma jug jël sa photocopie carte d'identité banlieue bépp artiste yëpp jox ko ministre bi mu teel a réagir banlieue bi teel a jot seen yëpp tey jii loolu moo waral nag maire bi ñu waxtaaneek moom mu kontaan ci mënuma Yves dinaa la jàppale. naa la jàppale incha allah pour que ngeen dajaloo yéen artistes yi parce que dafa am benn fonds bu fi nekk boo xam ni euh, social bi dañuy jël. seen wàll comprendre nga. Mhm. sport bi di ko jël yaa ngi dégg santé bi di ko jël ñëpp di jël mais culture bi li fi nekk dama koy bëgg loo delloowaat te yéen a ko moom samay frère ngeen bu ma sañoon da ngeen koy jël chaque année waaye tey jii Yves Niang mënul ñëw rek ñu jël benn enveloppe jox ko wala Pape fi ñëw wala keneen ak keneen il faut ngeen booloo su ngeen booloo créer seen association bu mag bu ko defee chaque année dinañ leen jox loo xam ni di ngeen mën a def seen festival comprendre nga. Mhm. artistes yëpp ñëw participer rappeurs yi ñëw ñuy def cinéma ñëw waa Arcos Ban ñëw. loolu nag ci tànk yi bi ma ko waxee ba léegi nelaw ma guddi nelaw ko bëccëg ba macha allah maire jox na ma clé yi jox na ma caabi yi jox ma bureau yi instant bi nii équipement lañ nekk di lijjanti macha allah war nañ gisanteeg maire war nañ dem seeti ñëpp pour que vraiment ñoom ay ordinateur am ay am ay table xam nga am lépp pour artistes yi di fi ñëw di fi daje. pour ñu mën a teg ay projet ñun na commencé nañ ci liggéey commencé naa woo par kenn kenn parce que comme mbir mi ñu ngi koy doo a jot taxawagul mais sama objectif sama yéene moom mooy li ma bëggal sama bopp tey jii banlieue bépp ma yéene leen ko mu ñi nga xam ne maa mag ak ñi nga xam ne ñoo ma mag loolu daal fi ne moo tax nelaw